Gaston Production le Don King de l'arène sénégalaise nee na le premier janvier Balla Gaye à Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor lamb ji waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa Guédiawaye ne Balla Gaye 2 ñoo la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 jaar Ikotaf Balla Gaye 2 jaar Balla Gaye 2 jaar bu mag Balla Gaye 2 jaar gars naan ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars naan ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang dàqi ko waa Ama Baldé dàqi ko ma ne le combat du premier. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey indi leen seen émission bi nga xamante bi ni yaakaar naa ne gëj ngeen koo gis ndax Modou Anta fan yi moom. yaakaar naa ne jàppoon na lool lool lool waaye reprendre na nag mbokk yi fajaru mbër fajaru mbër ci télé bu mag bi di Gaston Production yaakaar naa ne nag ñu jëm ci événement yu rëy a rëy rëy mbokk yi nag bi ci jiitu mooy première janvier moo ñu fi tax a ñëw tey kan lañ seet si ki nga xamante bi nii mooy càndum numéro 2 càndum numéro 2 nag di ndaanaan boo xamante bi nii yaakaar naa ne ci biir làmb la nekk Malick Thiandoum reporter la tuddee boppam wala Malick Thiandoum journaliste borom TFM la tuddee boppam ba tax na tey nag ñu jël si ko fii mu am combat le premier moo war a bëri spécial bi digganteem ak saa bokkal bu taay si nga digganteem ak saa bokkal doomu ndeyu Eumeu Sène Thiandoum 2 nag ñu jël si ko fas yéene waxtaan ak moom mu am ay combat yu bëree bëree bëree bëri si biir làmb yaakaar naa bu ma ju ma duggee naa ko laaj entre onze douze combat du ko passé parce que fàttewu leen digganteem ak caatu doo euh, euh, nu mu tuddati Luc Nicolaï numéro 2 waaye fàttewu leen digganteem ak ki nga xamante bi ni mooy Pape Robo fàttewu leen digganteem ak ki nga xam mooy caatu Jolof waaye digganteem ak xumbal digganteem ak Bébé Diène digganteem ak Brice Demer numéro 2 bu Grand Médine digganteem ak xale ba nga xamante bi ni mooy booy ñaa déranger mu bëreeg ay ndaanaan yu bëree bëree bëree bëri si biir làmb yaakaar naa ne kan la mujj a xale bi nga xam mooy Njaga Caam ci biir palmarès sam yaakaar naa ne ñaari defet enregistré na ko ci bu ma juumul yoo xam ne fekk naa ko muy xumbal ak njaga caam muy ndaanaan waaye mbokk yi nag laataa loolu le premier janvier xam ngeen ne programme bi nii lay demee Balla Gaye numéro bu école de lutte Balla Gaye dina fa bëri ak xale bi nga xam mooy booy Niang numéro 2 càppaacoli bi borom bu jeexee jeex na waaye ci biir loolu combat spécial bi saa bokkal bu taay si nga moo koy bëree xale bi nga xam ne mooy càndum numéro 2 bu euh, Ikri Ndiaga Sarr si biir loolu Eumeu Junior euh, moom mi ngi géejawaay mbooloo dina fu bëre ki nga xam mooy Sa Thiès euh, Sa mi ngi nekk caaro yi waaye ci biir loolu ki nga xamante mooy Source Squad yaakaar naa ne xam ngeen ko rock énergie la nekk toj na mbapat yi lool lool xale bu macha allah Balla Gaye ëpp ko Boy Niang ëpp ko mooy bëreeg ki nga xamante bi ni mooy raabel raabel mi ngi nekk tamit taysi nga kon taysi nga am nañ ci ñaar si biir loolu mbokk yi kiriku ki moom xam naa ne beneen kiriku la ah ok kiriku bu sumbu jum la yaakaar naa ne moom mujj na bëre ngooñaan fay xale bu gàtt la moom tamit ndaanaan la mooy bëreeg ki nga xamante bi ni euh, mooy faramaareen euh, bu pikin wàqi naan kon ikri ikri ngeer bu sabbi la pikin wàqi naan mooy yaaw jaal bu pikin mbooloo mi menn mi ngeen xam nag mooy bëreeg Mass Bantamba <laughs> doomu day Euziga mbokk yi dañuy dugg ci biir ñu wax ak Thiandoum 2 ñu ànd ak moom dem entraînement ma xool ba xam gars yi ñu ngi nelaw wala nelawoon ci kaw la dëkk wala ci suuf waaye bu Bouba photo baa ngi noonu ci kaw Malick Thiandoum numéro 2 la tuddee boppam. fajarum ba nag dama koo gëj a def fan yii moom xam nga marié yi nelaw da leen jàpp kër gi xanaa ku fi ne salaamaaleykum le grand. ngi si jàmm baax kay. sant yàlla baax alhamdulilah. na ko. man ngeen a nelaw nag de. non nelawuñ sax yeewu leen bu yàgg de. Ah. waaw di waayal entraînement rek. ana mbër. mbër mu ngi si kaw waaw. dem si kaw dem si kaw waaw. ayca yox la jëli ko bisimilah. la jëli ko ñu dem ci kaw. mbër métier. waaw looy liggéey. man usine ah, allah waay. wóor bii ngay xëy nii. kon yaa càndum yéen a dëkk. la maa ngi ci kaw. maa ngi kaw rag muy kay ma jaajëf. sax kay ma ah. <laughs> yor seen appartement tëdd quoi. paa booba nag. installé tey nga gis nelaw yu mbër yu doy waar comme li ma lay wax chaque jour nee naa la mbër bu nekk la la caatu daaw wax naan caatu na mbër bu nekk ak na muy bëree caatu daaw da faal ak na muy bëree mais waxoon naa la ne la mbër bu nekk ak na muy nelawee <laughs> Pape Bouba li ma lay wax chaque jour téléphone lañ gën a fonk xoolal du leen sori. du leen sore jëlal ma comme li ma lay wax chaque jour fajaru mbër yi doon jël foo man di nekk téléphone la ñuy teg ci wet kii de moom xaarut ñi yëpp xanaa daa tiit mu ree ko moom di ko def càndu ci loo fayal caméra bi mu jóg. caméra bi léegi mën na mu jóg ci <laughs> kii quoi <laughs> xool moom di ko def moom. yaa ngi si maa ngi sant bu baax. <laughs> xool ko. bari ah am na lu muy nëbb de <laughs> papa ma jëlal lépp <laughs> tapp ka ne voilà mbokk yi mi moom kay da ngay dem nga préparé wu ji rek sëlmu dañ lay topp lépp looy def nga def ko nga doog a wàcc cey Pape Bouba Pape Bouba ku xuloo yow moo la tooñ <laughs> incha allah <coughs> a tooy de lii nag walu teel la ku ñëw ci bind ba ngay taxaw xoolal ma lii di bugur buguree ki doomam taxu koo sàkki jam-jam kay defadd la baaxoo wéq doon la ci baam tey des ka waar wa yàgg nga ngir daanaan ngir nga démb ngir nga tey dudu yaay kati <laughs> waaw waaw Wow. Thierno maa lay siyaar. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatulah. Modou Anta maa ngi la nuyu sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm di ko sàkk jëw di nuyu waa école Ndiaga Sarr yëpp di leen ziar di ñaan sa papa Ndiaga Sarr yal na ko yàlla yërëm dugal àjjana daw si njaboot gi mbaa na ci yàlla teg loxo ci barke Seydina Mohamed di nuyu sa papa di sama papa maa ngi koy ja maa ngi koy jaale moom it ak yëpp di ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm dugal àjjana fi daw si njaboot gi mbaa yal na yàlla teg seen loxo barke Seydina Mohamed nuyu sama yaay Adja Mariam bu baax a baax soo gisee ma jiite ñaar ñooñu noonu sama kilifa la ñoom xam ne nii tey lu ma am ci làmb rek ginnaaw yàlla ñoom la Père Ndiaga moom a tette kii combat mu mës a bëree na ci ci xalaat ci ñaan ci alalam te yàlla def ñaan ñëpp utee kon dañ ñaan yàlla yàlla yàlla yéeral ma dugal jànna fi doosi di gërëm waa école Ndiaga Sarr gi yëpp di ñu élaaj suñu kotu waaw ndax pay bi demee ba léegi wax dëgg yàlla mi ngi taxaw duñu jàppale ñoom B52 waa équipe yëpp daal su ma su ma su ma limee rek mën naa bañ a matal sa boobaa kër mën na gis sa bopp loolu laay bañ waaw di nuyu di nuyu sama yaay jaari mbay ñu koy bu baax a baax di ko ñaanal doom ju taw yàlla ko yàlla saafara ak Seydina Mohamed ndax suñu yaay la ni suñu suñu présidente di ñu conseil di ñu jàppale di nuyu président Lat Diop wax dëgg yàlla mu nekk ku wax bu baax ku ñàkk ñaan ku xam ne nit musoo ko gis musoo ko gis moom nga am combat mu jàppale la ci mu jàppale la ndax doomu géej loolu dafa jafe loolu ko def ngir yàlla la te lépp lu ko waral suñu yaay Adja Jaari Mbay moo waral loolu ko ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. noo gisee fajaru mbër. waaw fajaru mbër mi ñun moom yàlla def na wax dëgg yàlla ñun bañ nekk mbër ba léegi chaque fois dañuy yeew dem entraînement nekk na loo xam ne dafa ne ba si ñun sax bu ñu ko deful dañ am lu ñu manqué waaw. séance d'entraînement yi fii ci dini gaañ nga sa bopp de. ah waaw mais wareef la mun a entraîné da ngay xëy sa micro xaaj sa caméra même quand c'est sol bi tamit la même waaw kon ñun tey li ñu am mooy taxi daal dugg ci géej gi rek Fatick. bu ngoon nañu taxi ngeen ma contact loolu rek la waaw. Mm. bu ma doyal. Mm. man man li ma loo yor laa soxla di. dañ maa dañ maa yónnee ji nuyu nag Serigne Boub Serigne bu Kaolack ñu ngi koy nuyu bu baax di ko woo ci combat bi. di woo Mor Ngom bu baax a baax. di woo waa waa euh, madame bu baax a baax a baax. waa mairie Kaolack bi yëpp ñu leen woo. di leen talal loxo seen doom seen xarit seen jarbaat mu am combat le premier janvier journée bu mag kon nag ku ne sa doom ge tëroo man seen doom laa seen jarbaat laa ba ngeen jàpp ci combat bu baax a baax wa baax waaw di woo ñëpp nag di di woo Ibou Bambara waaw di woo di woo Adama woo Ousou parce que lamb ji lamb ndimbal la lamb ji dafa nekk lamb joo xam ne journée bu mag la mara boo dem sax boo doon jox 10 000 boo dee mën la 50 000 nga may fay ndax fay mbëri ma fay kon dañoo war a am ndimbal sa gaston bisam bi dañ ko bëgg ñëw indi ci mbooloo ñu nit ñi ñëpp def sa tigay dafa seer ñu ñëw indi mbooloo ñëpp mobil si entre def li ñu entraîné a yóbbu ci mbooloo dem yàlla suwal ñu may ngi ndam ma dooleel ñu ñu dem jëlee macha allah mbokk mi ngi noonu Pape Bouba gis nga yeenan ko fajar këram ànd ak moom bañ jógee këram aussi tamit ñëw nañ fii ci dini gis nga séance de entraînement yaakaar naa ne tey daj na coono dëgg dëgg dëgg dëgg léegi nag yox la jëli ko ba tey émission bi du jeex dañuy ànd moom fële ca salle de entraînement ba mu wonewaat boppam bu ko defee nag ñu taxaw wax ak moom ci adversaire bi mu jël muy saa bokkal bu écritage nga mbokk ci kanam tuuti ñu yegg saal jërëjëf. awaaw ah du yaay kat yi lii ku ñëw ci bind ba ngay taxaw xoolal ma lii di kukur kukuree ki doomam taxu koo sàkki jam-jam kay defar la baaxoo wéq doon la ci mbaam jàmbaaray des ka waar wa yàgg ngaa gis nga démb ji nga tey du yaay kat waaw waaw Medina yaakaar naa léegi si li ñuy taxaw ginnaaw yeenan la fajar ànd ak yow nga dem géej def say séance de entraînement ñëwaat si kër gi ndékki tey ñëw nañ fii sale de entraînement bi yaakaar naa ne fi ngay defee dernier réglage bi bu ngoon gee nga dem contact gi loolu lépp si wàccaayu Pape Bouba premier janvier la premier janvier nag kenn ku nekk xam na ne Balla Gaye numéro 2 mooy bëre ak Boy Niang numéro 2 fële ca arène nationale bu Pikine yaakaar naa ne càndum numéro 2 mi ak saa bokkal ñooy bëri combat spécial bi tàkkusaan googu bari na ay combat yoo xamante bi nii am na ca waaye mbokk yi billet yi tamit yaakaar naa ne génn na billet bi ci gën a yomb yaakaar naa ne 5000 francs la mooy supporter yi yeneen yi ci topp yëpp yaakaar naa ne 15000 xam ngeen ni mu demee ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax ñu nekk ci wàccaa bi supporter yi Thiandoum 2 nag ak mboolem ñi nga xam ñoo abonné ci Gaston Production continue leen abonné yi ñuy jëm ak yéen le premier janvier incha allah rabbi ñu ngi ci liggéey bi jël si nañ ko dinañ dem fële ca mbaaw jëli ki nga xam ne mooy saa boxol Thiandoum léegi dañuy taxaw ci adversaire bi lan moo la booleeg moom promoteur bee ko démarché yéen ñaar yéen bëggante wala soit wu promoteur la wala amateur. waaw salaamaaleykum maa ngi lay ziar Modou Anta di nuyu ziar ñëpp di bëggee ñëpp rawatina waa école Ndiaga Sarr rawatina waa Géejawaay yëpp écrit géej waa yëpp ñu leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan mbër mu am combat yàlla may ndam ku ci amul combat yàlla may combat ci barke Seydina Mohamed di bëggee waa Géejawaay yëpp waaw Modou Anta <coughs> ñun moom. di am kontaan tamit ci émission bi parce que bi ñu nekk ndaw doog a bàyyi jàng ñëw dafa am benn émission bu tudd xam sa mbër ah. doon yéem mbëri faja jën lépp mënoon na xool topp jël daw daw ba émission bi jeex tey bu ñu nekk mbër hmm. dem tey ba am ku ñu defal li kon suñu ref yaakaar naan am nañu yaakaar na dañuy refoon séntu ko bëri dana egsi hmm. ndax lu bëri ñu refe daal ñu ngi ko gis hmm. am nañu yaakaar si kanam dina gën a ñu egg ci roi des arènes incha allahu rabbi di adversaire comme adversaire yi pa waaw adversaire bi comme rek doy rek lam te boo xoolee ci làmb bu làmb waxee dëgg du ma bëri parce que maa ko maa ko tour maa ko maa ko eh, na tour de. waaw waaw maa <coughs> am am tour. tey samay supporter naa la wax ñu bëri xamuñu ko maa ko ëpp tur junjoon ci làmb wallaahi ah, lazim supporter nekkunu ci làmb non ba nekk ci làmb yow mu daanta xam nga fi jaar saa bokkal jaaru fa nañu wax diggante dëgg moo neex yàlla rek champion la nangul naa champion la daanaa la nangul naa ko waaye bu bu làmb waxoon dëgg du ma bëri ak moom maa ko ëpp combat ëpp ko victoire tey jël ko li tax ma jël ko ñàkk adversaire moo tax ma jël ko. jël nga xale bu dansé nag. waa mais maam ak jomaay rek. man ba ma jëlee bëree ba léegi mos naa jël combat bu nooy combat bu ma jël njar dem la yàlla ma na taw hmm. waaw. yaa ngi si ñaata combat onze wala douze. bii mooy douzième. bii mooy douzième combat. waaw ñaata victoire. douze dix victoire. deux défaites. waaw. moo la daan ak sa combat mujj njaga saa kii eh, Njaga Caam waaw xam nga xam nga damaa defet war war a dugaat Pikine. Pikine nga dugg wala Mbaaw. Pikine Mbaaw la na parce que Mbaaw la dëkk waaye waaye Pikine lay représenté. ok kon tey nag fi ñu toll nii. nag yàgg nga nga bëree euh, caatu Jolof la xaw boo Jolof waaw mais d'accord waaye tey li li naqari samay supporter naqari ma sa mujjee ci Pikine la jógee. kon moo rëbëra doom Pikine kon jàppal ne revanche la rek. waaw. nan nga fas yéene jëflante ak moom tàkkusaan googu parce ku dul gaynde moom doo am victoire. waaw mais nañ daa nañ daa demee nañ daa demee liggéey nañ def la ñu war lépp ànd suñu coach ñëw dem xare Badar jël bakkan bit bàyyi ko kër ga. dem rayante ji ko. jëli ji ko lépp lu ñu def loo xam ne bu ñu yàlla danañ may ndam incha allahu danañ ko def danañ ko jaayante ndax liggéey nañ ko sa rafet nañ jot am nañ yaakaar bu baax a baax si suñu bokk ñaanal nañu la koy war def nañ ko. kan mooy diriger combat boobu. ma man man daa ma sax bëri combat bu ñu ma moom de làmbam moom bu yàggee rek xamal ne métti na moom jomaa dafa yàgg métti mais bu mujj bii moom ak papa kii lamp lamp bi dëkk parcelle baat tontu la de. waaw loolu moom ay mbir moom la concerné man man li ma man man li nekk ci man ak li ma ak ma entraîné ñu mu yor ko licencié man nekk ci man bu jour la ah, yàgg waa léegi man dépasse suba gannaaw yabe ma sama supporter noonu dama am ci ah, li ma jugee match nil nag mën naa am de yaa ngi seen du faar match nil daa yomb léegi non non moom du ci am moom incha allah du ci am déedéet waaw ah, yabe ma sama supporter nu may nekkee fii tamit dem faju ji ñëwaat na waaw mais sant ci moom rek ay fajoog ñoom man yàgg naa dem faju ji ñëwaat daan loolu moom mis naa ko sama supporter mis nañ ci man moom daal xaaruma ko ki dara xoolul am ak lu mënut man li ma liggéey ak li ma am dinaa bu jour ba dinaa ñëw xooluma lu am ak lu ma amut dinaa ñu appliquer li mm. waaw macha allah yaakaar naa ne mi ngi noonu daanaan la am na lu mu def ci làmb parce que du ngeen fàtte tàkku saanam ga ak euh, Pape Robo waaye du ngeen fàtte tàkku saanam ga ak Luc Nicolaï numéro 2 waaye fàttewu leen a digganteem ak caatu caat booy Jolof waaye fàttewu leen aussi tamit digganteem ak ki nga xam mooy Brise de Mers bu Grand Médine waaye moo fi daanaan bébé Diène bëre feeg xumbal bëre feek booy Malika ndaanaan yooyu yëpp yaakaar naa ne am na fu mu jaar ak ñoom ci biir làmb tey adversaire bi xam nga ko ci làmb wala xam nga fi mu jot a jaar wala saa wallaay gëstu ma gëstu gëstu ma ko de. waaw loolu wóor na. non non non parce que xam nga mooy problème ñun suñu kii yi am na champion bu ne am na poids lourd poids risé raw garde poussière lépp am na fa te ñëpp dañu entraîner kon ñun lépp lu mu ñëw rek bu su bu ko neexee na ngeen mu tax Eumeu Sène ngeen ma daan ko dem ci Eumeu Sène daan ko incha <laughs> ba <laughs> na ngeen mu taxaw Eumeu Sène ngeen mu taxaw ma daan ko dem ci Eumeu Sène daan ko incha ah, allah. mooy yéen waa géej waaye nag xam ngeen Eumeu Sène ngay wax nii. ma ne xale ma làmb ji doon final final. waaw demi final final boo ñaa boo ñaa poulet Eumeu la man poulet Balla Gaye laa. waaw léegi dama war daan ñëw xajal Balla Gaye Balla Gaye daan ba pare ñëw mu xajale ko ci Eumeu Sène mu ñëw def na ko suñu noonu rek coow la jeex. na li nga wax ni ba ko def li nga wax de na xaw ma di maa ubbi sa neem soob na yàlla incha allahu rabbi. damay daan sa maa ngi maa ngi woon ak yëpp daara yëpp yëpp kuy ndongo daara rek. kuy te yàlla tax. la si maa ngi lay ci combat parce que ñun meññit ndongo daara suy ferte hmm. yàlla moo def ñun ci lañ judd ci lañ màgg ci lañ yaru ñu ngi ñëpp hmm. ñu taxawoon ci combat bi jàppale parce que ñaan na yàlla ëllëg ñi dem ba am tey li am lépp doo ko dégaat defaat ci daara parce am rek ginnaaw yàlla daara moo ñu ko def di nuyu nag bépp kilifa bu ma ñaanal du ma tudd benn tur képp kilifa bu mu ñaanal rek maa ngi lay woo ci bi na la looloon def benn def ko fukk macha allah yaakaar naa ne tàggoo bi eh, eh, ci lañ des mais dayoo combat bi fan la la toll parce que tàkkusaan gu mag tamit ngay bëri jàpp naa ne ñu ngi may doon ngénte ci làmb tey sa bu ñu ngénte mooy premier combat ci làmb jàpp naa ne bi mooy sama premier combat ci làmb daam ci ma jógee sax yëpp mooy samay supporter làmb ji billaahi wallaahi damaa jaral dama entraîné bay bëgg a dee. seen mi ngi lay mu kii amul may wax ak moom xam na laa am lu may wax ak moom. xam na am lu moom. at bu soufflé ma ñëwoon na ko man du ma sa morom jëlee la fi loolu laa siix ak moom. mu daanta waaw damaa bokk damaa bokk ci mbëri géejawaay. daanaan nga de. damaa bokk ci mbëri géejawaay bokk ci làmb. làmb yaakaar ma ba ma dalee bëre ba léegi maa jëriñ làmb làmb jërëjëgu ma. c'est vraiment fu ma war a jëriñoo ci làmb. Mm-hmm. mu daanta mm-hmm. papa dem na yaay fi des. c'est lu ñu war dañ ko war a teral mm-hmm. kon am na loo xam ne caaxaan waruñu barke Seydina Mohamed wallahi lazim sa combat bi sa ubuntu làmb la sa xam naa ko bu baax a sa neem soob na yàlla yàlla dina may ndam incha allah rabbi mm. ñu koy déggaan yàlla bu a baax mm. macha allah ma bàyyi la nga tàggoo woo ñuy jàpp si combat bi waaw mais santaat yàlla d'abord di woo waa géej waag yëpp woote bi ci Balla Gaye de laay njëkkee mm. parce que mooy suñu grand suñu champion suñu idole ñuy bëree ci journée am yaa def na bëroon ci ñaa am dam ñu war ci bëriwaat di ko taalal loxo ñu soxluñ benn dërëm soxluñu dara li ñu soxla mooy mu taxaw jàppale ci ay billets ndax suñu koy samay supporter ay supporter am lañu parce que man supporter Balla Gaye laa ma dee ba nekk mba samay supporter yëpp ay lañu kon nañu taxaw jàppale ci ay billets ñu mën ko dem stade laay waxal suñu grand suñu tonto ñu nekk dëkkandoo ñu bokk benn koñ jéey combat bi dañoo bëgg nga jàppale si yaara rek tax kan moo jënd fii fondé dama leen di yoole de jënd kat ah ñun ñun ñun ay kamantaawul lañu nag ñun dañoo paas ñëw dañoo gàddu mbuus ak ñëw lekk moo bëri waaw mais amul problème cereeg fondeeg mburoog lépp. lu gën lu neex am na. waaye lu notaire mi. ma ne lu gën fondeeg lu gën dugub fonde fonde dugub la dofoon dara gënu ko. ayca yeggale woo ji ji wax jéy na ko nag. Euh. say rek say jarbaat ñu lay tàllal loxo. di ñaan nga nga jàppale ñu te yàlla rek tax ji jënañ ci ay billets jàppale ñu ci billets ñu soxla loolu du billets mën na supporter dem stade rek. loolu rek moo ñu ñor. monsieur le maire Mor Waré Guèye. ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax baax a baax na ko mu jàppale ñu ci combat bi daan jàppaan na gën a jàppoo premier adjoint Bass Diakhaté combat sa combat la ñu ngi lay woo nga jàpp bu baax a baax a baax sama grand sama xarit kenn ci man grand Modou Faye mission spéciale combat bi sa combat la waaw taxawuñu jàppale ñu doole ñu comme ni nga ko doon defee. macha allah sama papa Moussa le encore maa ngi koy ñaanalaat yal na ko yàlla yërëm dugg ak jànna fi daw si yal na yàlla attiku ci yërmandeem ci barke Seydina Mohamed wallahi bu doon dund ba jamono tool du ma woo kenn ndax xam naa moom rek doy na ma bu doy na ma ànd ak di ànd ak ko. waa ji di sama yaay Adja Marème Diop mention spéciale wallahi sama yaay sama xarit di ma conseil di ma jàppale kenn ci moom di ko ñaanal jàmm ak sutura njabootu bayit seeg yëpp waaw di ñaanal sama yaay Adja sama yaay Jaari Mbay suñu présidente bi ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko siyaar bu baax a baax a baax na ko yaay boos doom bi na te nag jàmm ba nga nekkaa si activité sa di gërëm la Diop li may wax doo bëgg nga génne ko directeur LONASE directeur président ñu ngi koy sant bu baax parce que mm. dañ ko def man mosuma toogam mosuma ko gis sama combat passé suñu président dem wax ci moom Adja suñu yaay jaari mbay mu jàppale ñu xaalis bëri jàppale ñu sa mosu la gis kooku bu ne la kooku kon xam ki ñu yàlla la may mm. parce que ku la gisul nekk mu jàppale la mm. kooku buñ ko dëloon jukkal kon ñun ay prox lañ gënëm jamu gërëm li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal di bégee képp kuy doomu géejawaay di gërëm nag waa Kaolack sama waa dëkk mention spéciale képp kuy doomu Kaolack maa ngi lay bëggee rawat na doomu ndeku ndaw rawat na tund Saalum bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen nuyu di leen bu baax a baax a baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm bu baax a baax Serigne Mboup Serigne Mboup monsieur le maire Kaolack ñun ay doomu Kaolack lañu Kaolack lañu juddoo fa lañ maag fa lañ defee defee lépp amul fu du Kaolack ñu ngi koy woo mu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax a baax Serigne Mboup ki mu jox maire bi mooy Mbaye Ngom ñu ngi koy woo ci combat mu jàppale ñu grand Mbaye Ngom mu monsieur le maire Kaolack mu jàppale ci combat bu baax madame Ngom dégg nañu dégg nañ li ngay def bu baax a baax social li ngay def biir Kaolack nga taxaw jàppale ñu nekk Dakar di représenté drapeau Kaolack drapeau Saloum kon bu baax a baax a baax di nuyu nag directeur Senelec booy Pape Demba bi tey non làmb lañ jëm luñ amul ñu dut ñun amul ñun ñu dut ñooñu parce que taxaw dañu jàppale Pape ñu ngi koy woo ci combat mu jàppale bi directeur Senelec parce que dama jël samay grand taf leen ci peggam di leen mu ñu koy liggéeyal di leen taxaw di ñu jàppale man dem naa këram demati fa ko nañu jàppale doolal ñu madame bi tey dégg na social yaa ci man kon nag jàppale ci combat bi ñu ngi la ci woo bu baax a baax a baax di woo waa géej waay tout le monde képp ku dégg tur rek jàppale na xel moo matul di woo ASC yi ci géej waay yëpp waa Kalso waa Yowmal Xiyaam waa Ayti waa Toobe waa waa Kafe ga mais aram ñu ngi lay jaale di la ñaan di la ñaanal sa sa soxna sa sëñ bi génn àdduna ñu ngi lay ñaanal yan na ko yàlla yërëm dugg aljanna fi daw si yow suñu yaay nga suñu lépp super gi Camara ba faas ñu ngi koy ñaanal yan na ko yàlla yërëm dugg aljanna fi daw si sama père nag da doon ñëw da doon ñëw sama kër sama jour combat di ñëw sama di ma conseil tey sama premier combat fekk fi mu dem kon tey ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla dugg àjjana fi si ak Seydina Mohamed ji woo kullum rek képp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ziar ñëpp di bëggee ñëpp sa waaye ko Ndiaga Sarr nag mention yal na ko yàlla may dem ci combat bi mu jëm barke Seydina Mohamed Emerson Senior ak mbëri géej waay yëpp wasalaam macha allah mbokk yi mi ngi noonu yaakaar production le Don King de l'arène sénégalaise nee na le premier janvier Balla Gaye 2 à Boy Niang le face to face Guédiawaye Pikine waa Guédiawaye ne ñoo yor lamb ji waa Pikine ne ñoo fi teg tànk waa Guédiawaye ne Balla Gaye 2 la yabal Pikine dugal Pikine Balla Gaye 2 Ikotaf Balla Gaye 2 jaar Balla Gaye 2 jaar tali bu mag Balla Gaye 2 jaar tali bu bees gars yi ko Balla Gaye 2 dinañ la tëbali gars yi ko déet Balla Gaye 2 waa Boy Niang ko waa Ama Baldé dàqi ko ma ne le combat du